asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum àdduna Wally Balago Seck mu ngi ñëw di wax ak yéen ci nouvelle bi mu jët tey ci suba teel bi ah ñu ne goutte d'eau bu déversé vase bi euh, maa ngi ñaan autorité sénégalaise à ce que ñu dimbali ma parce que sonn naa c'est fatigant aussi vraiment ci par rapport ak sama famille par rapport ak sama njaboot métti na je pense que war nañ ci mën a def jéego damay wax en parabole c'est-à-dire ñu tënk depuis 2016 wala fin 2015 laa gëj a génn wax ci lu mel ni wala wax maa ngi def silence rajo rek mais trop c'est trop aussi day mel ni yaa que sax man lañ may reprocher dafa am leng lu may ragal non non non aw ma lu ma ciy ragal parce que man musuma bokk ci association ni lobby mel ci de près ou de loin lobby boobu ngeen di tudd muy borom lobby ñaari tur yi musuma bokk ak ñoom musuma bokk ci ñoom duma ma tudd seen tur nag di def promotion bi sax comme ni ngeen koy defee ñenn ñi ci Sénégalais yi duma ko def musuma lekk seen xaalis bugguma seen xaalis te duma ko lekk ilaa yow mi diin yàlla teral na ma maa ngi sant yàlla beneen bi ci topp mooy metti na métti boo xamante ni léegi sax dañuy yebal ay nit ñu ñëw ba sama kër ñu dañuy dugg par force bu leen gardien yi téye ñu xeex ñoom dem wu ci certificat médical yóbbu ma ci yoon y a même pas dix jours dem naa wuy ji bi ñu naan dama dem wuy ji affaire oto c'est faux dama demoon wuy ji parce que dafa am ku ma porté dafa ñëw doon xeex sama gardien man fekkee fekkeewu ma yëguma tiinuma buy xeex ak gardien à un yi donné dafa mujj métti dafa mujj metti et c'est fatigant ngir yàlla war suuli maa ngi ñaan à ce ñu ñu ñu ñu xam ni doomu jullit laa dama am njaboot te à partir d'aujourd'hui permettre tuma quiconque ak ku mën a doon ak foo mën a nekk ngay wax ci man sama der bi ci teg lu ñaaw soo ko defee dina la yóbbu ci yoon te dès demee am na situation yi dem ñu war a wuy ji ci yoon parce que dootuma permettre kenn di jël dara di ko teg ci sama der bi et ñi nga xamante ni ñu ngi dem pour wuy ji ñi may képp ku ma yónnee citation ci sama pôle d' avocat yónnee la ko ak koo mën a doon naa ngi ñaan Sénégalais yi bu ma ci kenn ñaan njekk parce que bu ñu jël sama der bi di ci ma traité du n'importe quoi di dal sama kaw di ma wax du n'importe quoi ñoom ñëpp xam nañ ma te kenn du ci woote defendre donc bu ma ci kenn ñan njekk lu ma yoon may ma jël loo xamante ni man yëguma ko fekkewu ko melewu ma ci de près ou de loin li xew tey man teguma seen Euh, indiwuma logistique sama micro laa indi waay lan moo ci sama yoon c'est méchant ce que vous êtes en de faire c'est vraiment méchant et actuellement il faut que vous arrêtiez il faut ngeen arrêter li ngeen nekkee noonu bataille c'est bien beau mais na nekk musical acharnement bi bëri na ngir yàlla war suul yi man Wally Balago Seck su fekkee mës naa jël alalu ñooñu ngeen di tudd wala lobby farmason wala ku mu mën a doon maa ngi ñaan yàlla yàlla na ma yàlla àtteeg ñi ma koy waxal ci barke Seydina Muhammad baalu ma leen ko tey baalu ma leen ko ëllëg su fekkee nag mës naa koo def wala dama koo doon yàlla na ma yàlla weer ci nu mu gaawee nu mu gën a gaawee ci barke yonent bi wasalaam maa ngi jégalu ndax wax neexul surtout maag wax yu mel nii dafa sax nekkul sax suma suma suma suma suma nature mais en à un moment donné trop de silence day nuru leneen quoi je suis vraiment désolé maa ngi ñaan autorité sénégalaise ñu jàppale ñu parce que ñun artistes yi ay porteurs de voix lañ mais sonn nañu sonn nañu trop on est vraiment fatigué wasalaam